waaw jërë ngeen jëf euh, lii nag yàgg nañ koo def biñ daan def opération Médina 7 dañ daan jël délégué de quartier ak bàjjenu gox yi conseil yi bokk benn quartier ñu ñu gën a néew doole def leen ci liste ñu dimbali leen mais koor gi ñëpp xam nañ ci mbas mi ñu jógee métti na moo tax ñu tàmbali ko ci élu yi def ko ci délégué de quartier yi bàjjenu gox yi imam yi bilaal yi tey ci suba def nañu directeur d'école yi ak enseignant yi euh, moom yenn kilifa diina ak kilifa aada yoo xam ne dinañ leen seeti war nañ tamit ci café yi ndax kafe yi tamit am nañu solo ndaxte comme seet ko ci ñun tey dog ci mbedd bi nañu fekk mais ci ñoom la ñu ndogoo muy tuyaaba tamit kon yaakaar naa ne ñoon ñu jara dimbali lañu donc bu neexee yàlla dinañu leen dimbali bu baax a baax ñuy balu waa Médina yëpp leen balu ak di wax na ci jaamu daal lépp xaj bu neexee yàlla ñu ngi fu ñu dem nañu sàkkul ñaan Médina ñaan yàlla boole xol yi te li gën ñun yàlla defal ñu ko moo tax ci barke kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ñu ñaanal léegi di leen wax ni daal du mbiru politique devoiru maire la ndax maire képp kuy politique parti boo bokk moo la yilif ba keroog ñu leneen di am tey li may def ci turu waa Médina yëpp laa ko def devoiru maire yi la bu koor jotee mu joxe suukaru koor dimbali ñi nga xam ni seen loxo jotu seen gannaaw kon nañ ko jàppee noonu xam ne lépp luñ ci def rek yool bi na ko ñëpp bokk fu waay bokk rek nañ ci bokk yool bi xam ne tey ci turu Médina la ñu wax ci turu ñëpp la ñuy def bu neexee yàlla. waaw tournée bii dina ndaxte tournée bi commencé wul tey de kilifa yu bari ci Médina dugg nañ fa guddi def fa la ñuy def génn moo tax waa Médina yëpp xam ni lépp lu ñu defal seen kilifa yu baax yi ci seen lañ ko def ak fu waay mën a bokk kon bokk euh, ñu dellu ñaanal leen rek xam ni dinañu wër café Médina yëpp dinañ def yeneen quartier yi au total 46 points la ñu recensé tey def nañu 18 points suba yaakaar naa ni bu ñu jëlee tamit benn zone parce que boo déggee zone ci ñun mooy nga jël jàppoo njaacaar guy salaan pencum ti leen loolu la ñu def kon suba dinañu def Gibraltar Cëriñ ak Santhiaba gannaaw suba nag euh, ñu jël Guy Mariama boole ko Kusum ak Jekko Ngaraf dajal Médina bu ko defee nag comme que école yi def nañu ko pare ñu xool prison yi ndaxte am na ay doomu Médina yoo xam ne ñu ngi ci prison yi yaakaar naa ne jaadu na ñu dem ci prison yooyu seet leen ak seen i wayjur an dem ci hôpital yi tamit ah parce que am na doomu Médina yu tëdd ci hôpital yi démb am na hôpital bi dem wante la ma fekk daw na yaram fekk naa fa ay doomu Medina yoo xam ne ba ñëwee dañu ne ma ordonnance moo te pour ñu laal suñu malade kon ma jàpp ne kon am na ci hôpital bu ne ma gis ñu hôpital yu bari aussi ñu accompagner malade yi heure ndogu du ñu am lu ñu ndogoo kon dès doomu Medina nekk te am fa jafe-jafe rek ñu fekk la fa am lu ñu la jàppale bu korite gi jegee tamit ñi nga xam ne njëgu ganaar yi manqué ne lu ñu ci mën dinañ ko def bu neexee